alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokk yi bokk sant borom bi subhaanahu wa taala seer namul benn bur buñ war a jaam bu moom noo ngi balu aq ñëpp te di leen balu tey ñaan bur bi subhaanahu wa taala mu bokk ñu jéggal ñu ñëpp noo ngi ndokkeel jullit yépp ci weeru màgg wu tedd wi nga xam ne ci bisub àjjuma bi lan fas yéenee tàggatoo ak moom di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu dellu si ñu ko ay ati at ca mu ànd ak wér ak tal ak fekke mbokk yi sunu xutba tey mi ngi jëm ci melokaan win war a yor gannaaw bi kor koor gu jàllee xaaluna baada ramadan melokaan wi nga xam ne moom lan war a yor gannaaw bu weeru koor bi jàllee mbokk xam ngeen ne bu melokaan wi nekk ci biir weeru koor ak melokaan wi nekk wi nga xam ne gannaaw bu weeru koor jàllee moom lañ war a nekk ñaari melokaan yooyu ñoo war a bokk benn couleur ñoo war a bokk benn couleur weeru koor mi ngi dem ca bari na ci dem gi muy dem buy dem ñu niiw lay àndal lan moo waral ñu ne buy dem lu ñëw lay àndal am na ci ñoo xam ne weeru koor la ñuy julli weeru koor donc moo tax ñu julli su weer wi jeexee bu wax bu ñu déggoon nodd sax du dem julli am ci ñoo xam ne tiriyaanda gi nekkoon ci dëkk bi di lekk alale jaambur wala lekk riba wala yu mel noonu weeru koor dikk ñu bàyyi ko buñ jugee ci weeru delluwaat nañ ci loolu am ci ñoo xam ne caaxaan ak po yin nekkoon nga xam ne weeru kóor la dina tënk ba tax defuwuñ ko bu weeru jeexee ñu delluwaat ci la nekkoon am ci ñoo xam ne dañ daa jëfandikoo cigarette wala ñuy naan wala ñuy def fa yeneen yu mel noonu nga xam ne weeru kóor tënk ba loolu duñ ko def buñ waree ñu delluwaat ci ñoom ñooñu ñooñu ñoom ñoo tax ñu ne weeru koor kat dem na waaye buy dem kat daanaka ñu tuuti lay àndal ñu tuuti ñuy àndal mooy ñan mooy ñi nga xam ne melokaan wi doon ci biir weeru koor bu weeru koor demee bu weeru koor jeexee dañuy ànd ak melokaan woowu dem lan bàyyi woon ngir weeru koor bu weer bu weeru koor jàlleet loola dañ koy continuer bàyyi ko koo xam ne daawul julli weeru koor ngay julli weeru koor dikk na nga ngay julli weeru koor jeex rikk waaye julli googee na nga ko da ko continuer koo xam ne bàyyi woon na jël alal jàmbur wala wax nit lu ñaaw wala lu mën a doon wala dem ci grand place yoo xam ne du diine weer wi jeex rik waay continuer loolu ko bàyyi woon tux ngir weeru koor nga war a nga bàyyi woon naan sàngara ngir weeru koor weer wi jeex na rik waay continuer loolu bul delluwaat mukk sa manin saa yoo ca delluwaatee jàppal xel na yow lim ni weeru koor dal jàngale ak jukko ji nga xam ne moom la lislaam doon kii yow mën ngaa ñaaw yortu ne sab liggéey sax yàlla mën na ko bañ a nangu kon bokk yi melokaan wi ñu war a yor ci biir weeru koor su weeru jeexee moom lañ war a yor mu war nag ci ñun saa su ne ñu tàggatu ci niñ doon góorloo ci woor ak sarxe ak dinaa file di taxaw guddi donte dafa néew ñu di ko def buñ ko bàyyi mukk buñ ko bàyyi mukk kenn ku ci nekk la man mën dinaa file sa kër gannaaw boo jullee gee nga def ko bis yi nga xam ne tamit dañuy sopp ko ko woor boo ko mënee nga def ko sarxa bi nga daan def ca yàlla rek tax nga di ko continuer soo ko manee bokk yi jëriñuwun ci weeru koor lu dut buñ koy tàggu la ëpp ca njariñ ca ñoom ci weeru koor ñu ko daan jariñu ñu xool bëccëgam yu sell yu rafet yooyu guddeem yu am xiima yooyu ak ngëneel ak tiyaaba yi ci nekk ñu jéem bu ñuy tàggutoo weer wii loole mu ñuy bàyyeel ñu fas yéene koo jukkoo te bañ koo sàggane bokki weer nga ñu tàgg woo xam ne weeru alquran la weeru ragal yàlla la weeru muñ la weeru jihaad la weeru yërmande la weeru njëggal la weeru goreel nit ki sawar la weer woowu moo ñu tàggu tey yi weer la woo xam ne buñ xoolee ñun ñëpp la aaye ba waxoon la laallakum tattaquun nan bàyyi xel ba xam bu weer wi jeexee ragal yàlla googu dana nekk ci ñun wala du nekk ci ñun laallakum tattaqun kon koor gi ñàkk a lekk geek ñàkk a naan geek yépp suñ borom nee na li ma ci jublu mooy la laallakum tattaqun ndax lee ngeen ragal borom bi kon diplôme mu taqwa bu weer wi jeexee julli bu ci nekk war ngaa fexe su suñu borom jox la ko diplôme mu taqwa muy diplôme boo xam ne diplôme ragal yàlla la jullit bu ci nekk daan woor weeru koor war ngaa fexe ba bu weer wi jeexee nga am diplôme boobu la la koy may nag mooy li nga doon def ci biir weeru koor bi muy lu diine li santaane nga góor góorlu ci ca bañ cee sàggan bokk yi weeru jàngal nañu muñ kon nañ leen góor góorlu ci muñ lu ñu naqar yi ak lu ñu metti metti nañ ci góor góorgóorlu bëccëg bépp doo lekk doo naan frigidaire na sa sam néeg yàgg yàlla képp nga mën a tànq naan wala nga naan boisson wala nga lekk nangam defoo ko ngir sa borom subhanahu wa taala muñ ngoog kon lu ñu naqareete nañ ko muñ lépp lu gongat suñ kawra nan xam ne weeru koor jàngal nañu muñ weeru koor jàngal nañu muñu jaamu yàlla bokk yi naafile ngay ngay ngay naafile alquran taxawaay bi ni mu yàggee nga wëgg a sëlmal juróomi sëlmal métitu taxawaay beeg lépp alquran jii ni jàng nga ci am yëg-yëg ak weer yi ni mu ci tëddee ak ni màgge kon muñu topp yàlla mi ngi noonu kon kenn ku nekk ci ñun na nga góorgóorlu ba jaamu yàlla gi lu métti métti ci rek na nga góorgóorlu muñ ko ci xam ne ab diir rek la yar gin yar suñ bakkanit ci ay bànneex yoo xam ne charia dañu koo tare wala yoo xam ne sax l'islam daganal nañu ko waaye dañ koy dan bëccëgu weeru koor gépp dañ koy daw bañ koo def yooyu yëpp weeru koor jàngal nañu ko weeru koor jàngal nañu tamit ne aada yi nga xam ne dëppoo wut ak nga xam ne nit ki daf ko war a bàyyi aada yooyu buñ jigee ci weer yi dañ ko bàyyi roy gi ni royit loo xam ne lu ñaaw la ca bu weeru koor dikkee dañ ko bàyyi bàyyi roy googee ñu roy lu ñaaw su weeru jàllee bokk yi nañ continuer ca loolu kon weer yi madrasa la boo xam ne imaaniya la waaye madrasa boo xam ne ne li taxayuru min al amal wa suluk la école gëm yàlla la moom weeru koor waaye école la bu soppi jukkay doomu aadama weeru ko école la bi soppi jukkoy doomu aadama nit nag bu tàbbee ci barab buy sokki bu soppi jukkaam ca bi muy dugg ci barab bi indaale na jukko joo xam ne mu ngawut ak dara barab ba wala jukko joo xam ne diiney lislaam gërëmu ko mu mu am pas-pas ak yéene ba yàlla dogal sun borom dogal weer wa jeex na rikk waay jukko joojee lislaam weer wa soppi ca moom na fa séenee continuer ci soppi ga ca bañ a delluwaat ca la nekkoon inna allaha nag laa yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yàlla du soppi kenn lu da ngaa bëgg a soppi ku bëgg a soppi ko yàlla soppi la ki daan tux bu bëggee bàyyi tux te am ci yéene ju sell yàlla soppi ko ki daan naan bu bëggee bàyyi naan te am ci yéene ju sell yàlla soppi ko dégg nga ki daan caaxaan wala muy mooy yàlla wala muy deful naqar yàlla te bëgg a soppi ko am ci yéene ju mat sek yàlla soppi ko inna allaha laa yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ku bëgg dem ndakaaru da jaar yoonu ndakaaru ku bëgg dem Thiès da nga jaar yoonu Thiès ku bëgg dem Bambey da nga jaar yoonu Bambey yoon woo ci jaawale ci beneen dëkk ngay jëm waaye doo dem ci dëkk booba loolu mooy ku bëgga a soppiku da ngay jaar ci yoonu soppiku kon bokk yi weeru koor weer la woo xam ne suñ jukke yi ak suñ melokaan yi bokk na ci yi muy soppiku maa ngi leen di dénk di dénk sama bopp kenn ku nekk ci ñun bañ a dellu ci loo xam ne daa nga ko def ca ca neexul woon yàlla ca bi weeru dikkee bàyyi nga ko ñu bañ caa dellu lu mel ne kon mooy wala caaxaan wala bàyyi jaamu yàlla wala bàyyi jëf lu baax wala wala wala ak yu noonu am na ci ñoo xam ne dëgg dëgg yàlla bala ñu koo xam weeru koor daa jot mbokk yi nan bàyyi xel ne yàlla mi buuru weeru koor mooy buuru weer yëpp yàlla nekkul buur weeru koor dong de rabbu suhuur lépp suñu borom mooy borom kon buñ jàpp na rek weeru koor dong la yàlla nekk la sayida aboubacar sadiq waxoon korog bi yonte bi salaa sallam a génnee jamono dégg nga sayida ousmane lu aliyu ne ku wax ne faatu na naa la dóor ali euh, omar wax loolu aliyu la fañ ba aboubacar dikkee lu mu wax man kaana yaabudu muhammad fa inna muhammad qad maat ku daan jaamu rasulullahi rasulullahi faatu na wa man kaana yaabudullah fa inna la hayyun la yamuutu ku daan jaamu yàlla yàlla moom mi ngi fii di dund du faatu du def mukk kon nag bokk yi man kaana yaabudu ramadan fa inna ramadan qad maat ku daan jaamu weeru koor weeru koor moom jeex koo xam ne weeru koor képp nga daan jaamu bàyyil xam ne moom bis na ko tey weeru koor jeex na wa man kaana yaabudu llah fa inna allaha hayyun la yamuut koo xam ne nag yàlla nga doon jaamu ci biir weeru koor moom yàlla nga fi moom du dee du du du fi jóg kon nan dellu si waat xel yi man kaana yaabudu ramadan fa inna ramadan qad maat wa man kaana yaabudu llah fa inna laa hayyun laa yamut kon nan bàyyi xel ne yàlla la ni jaamu mais jaay jaamuwunu weeru koor am na ci ñoo xam ne moom julli di mën naa wax ne weeru koor la ni jaam weeru koor la ni sellal weeru koor la ni sori xaftaan dégg nga sol la ni yori kurus la ni yori sijaada la ñuy dem ca jàkka ja dégg nga la ni jombale seen lam bu weeru xasee jeex delluwaat na seen mëneem ña ngay jëw ña ngay rambaaj ña ngay xasaate ña ngay sàcc ña ngay lekk alali doomu aadama dégg nga ña ngay wax wax du dëgg ñooñee weeru koor lan daan jaamu waaye jaamun yàlla loole ñu bàyyi ci xel suñ borom nag dafa ñoo sant ne na nga jaamu yàlla ba dee dikkal la kon loolu mooy bu ko bu ko bu ko bu ko tënk rek ci benn weer wa abu rabbak hatta yatikal yaqin na nga jaamu sa borom ba dee dikkal la kon loolu bu ko tënk ci benn weer kon nañ leen góorgóorlu bu baax ci jaamu borom bi subhanahu wa taala jaam bi nag saa su ne jaamu yàlla ji daf ko war a continuer mu sax ci moom ca jéem a sax ci ak jub ca jéem a sax ci ak jub su weetee na jub su wettili na jub fu mu mën a dem na sax ci ak jub la Cheikh Moustapha Mbakke waxoon radiallahu taala anhu ku la mën a jur man Mouhamadul Moustapha ak jub rek ka ma doy yi ak jub rek am solo sama baay diw la sama maam diw la sëñ subaa ko seexal dégg nga moo fi def nii moo fi rey gaynde ga moo demoon nangam moo demoo gaanam yow moo mee sa maam def loolu fexee la def lu sa maam def wala nga jéem a jaar ca tànk ya fexee la góor góor ba ci la sa maam amoon nga jéem koo am fexee la sax ci ak jub waaye sa maam sa maam sa maam ca yow sa maam lam def yëpp dara jéemoo cee teg ca tànk ca yoon wa da ngay mbubboo sa maam rek waaye sa maam moom génn na ci yow laa taqul asli wa fasli abada innama aslul fata ma qad xasal qad yazuudu lmari bi gayri abbin wa bi usni sabaki irgaamu zagal kun ibnu shaytan waaye kat ba ne nekkal doomi ku la neex nekkal doomi ku la neex waaye da xam ne la ngay fàgg moom yaa ngi koy fàggu sa bopp ëllëg kon loole nañ ci bàyyi xel li ñuy fàggu ñun ku mu a doon ku sa baay baax baax baax ca baaxoo sa baax baay du jariñ dara ku sa baay dàq julli ca yow doo julli sa julli baay googee sa yoo nekku ca yàgg sa baay lañ koy jox ëllëg ku sa baay dàq joxe ca doo joxe sa joxe ak baay googee sa yoo nekku ca sa baay lañ koy fay ëllëg baay bi moom baay la yow it nag liñ tënk baay bi moo la tënk kon nañ delloo si waat xel yi jubluwaat borom bi subhanahu wa taala xam ne jaamu yàlla moom li feeg yaa ngi dund nga def jullit da nga ko a def yi ragal yàlla googu nag suñ borom waxoon ci biir weer yi moo war a nekk seulement bi ñuy jiite suñ suñ biir diiru lu ñuy dund xam ne mu'min saadix boo gis mooy képp mooy koo xam ne ay jëfam yépp ay topp la mooy tandiku yépp loo xam ne ay ak mooy la waaye nag soobu ci yoon bi nga xam ne mooy siraatal mustaqim ba koroog déeg di déeg di ko dikkal mu'min xaqan nit mooy koo xam ne mawaasim yi nga xam ne muy koor ak aj màkkaak tëbëskeeg koriteeg yu mu ci mën doon da koy fekk ca mu nekk ca la les yàlla santaane waaye bu dikkee loolu da cay gën a góorgóorlu ak góorgóorlu la ca la koy dolli waaye du loo xam ne day day tàmbali ci moom ngir jaam borom bi subhanahu yooyu yëpp nag bu ci tàggatoo ba noppi jeexital yi fi des la jeexital yoo xam ne jeexital yi fi des la kon maa ngi dénk sama bopp di leen dénk fi ni mu jëntale mooy yow doomu aadama bi nanga nga bàyyi xel soo loo dund dund ci kaw suuf bisa ngi ñëw daan wàqit bàmmeel suul la koo sopp bëgg def ko muy sab xarit bisa ngi ñëw da nga teqali koog moom jëfal lu la neex la nga jëf dong la la yàlla di fay ëllëg ak mbaax du ràpp mukk ci kaw suuf bàkkaar yàlla du ko fàtte mukk ki ko def bor du dee mukk ci kaw suuf li nga leble rek moom lan lay fay ëllëg yooyu nan ci bàyyi xel ginnaaw loo dund nag lu dund gi yàgg-yàgg bisa ngi ñëw da nga faatu góor góorgóorlu ci lu baax wala isa alfun thumma al fay ne baadahu fala budde min yawmin tasiru ila qabrin lu baax rek moo am solo kenn ku nekk ci ñun na nga ci góorgóorlu loolu ngay góorgóorlu nag bàyyil xel ne nag lépp lu waay leble ñu fayle ko nga mer la nga leble woon dafa rafetut képp ku leble lu baax ñu fayle lu baax ku leble lu ñaaw ñu fayle lu ñaaw bu mu la naqari xam na yaa ko leble noo ngi delloo wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci sunu waajur fi jigéen doon jàmbaar doo doon ni ma ko wax woon koroog ci armeer ya bu doon genn garab mooy penc mi benn car bu mag da cee fàq muy Baye Cheikh Gueye góor yàlla ñu xamoon taxawaayam ci ci penc mi waaye taxawaayam ci njabootu kër sëñ Omar gi waaye taxawaayam ci biir kër sëñ Assane ak ci bokk gi ak ci jëflante gi loolu nag la suñu borom waxal ci alquran rek inna nahnu nuhyil mawta wa naktubu ma qadamu wa atharuhum jooju li fekk addinaa ngi am ci kaw suuf Baye Cheikh Gueye xalima ak suñu nga di bind ay trasam rek ay jëfam rek yu baax rek ndax da koo jëf bàyyi fi loole nag nit ki ku bëgg suñu borom dafa log àllëg da ngay góorgóorlu ci lu baax lu baax rek moo mën a moo mën a may nit ki loolu fii nag àdduna la kenn waru fee nganda ngandlu kenn waru fee réy réylu kenn waru fee def dara noo mën a toll daraja doo la mën a am maqaama moo man a am bisa ngi ñëw ñalay gàddu doo leen doo doole leen doo leen xam ña lay ña lay suul doo leen xam te dañ lay jangti jangtee yóbbu la gasum pax suul la gannaaw boobu deful woon lu baax nag bu noppee ñëpp lay woon kenn du leen seeral bàyyi Cheikh Gueye góor yàlla mii nag képp ku bokk ca dawlab sëñ Omar bii xam nga jëfam muridan sadiq mutia taqi muslih yooyu yëpp dafa daje woon ci moom yàlla na ko yàlla dolli reer ci barzaq moomu ñëng yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin